mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi la ñuy àggsee ak yéen la ca gën a fës ci ministre de l' intérieur jëm ci ñi fi euh, dugal xar yi mu ni camion ngooñ yi euh, bu ci kenn rax yàmbaa ñu xëyee tey jii taal drogue bi ñu euh, saisir mu xam le ni léegi weer wu jot noonee lay demee askan wi dëkkee ñoom ca boori Mamel ni sonn nañu ci dëkkee di noyyi xet gu bon googu liggéeykat yi daan xëyee kon ko conseil régional premier ministre xëy na tey ji euh, dalal leen ñoomoo sër la ñu fa amalum ndaje euh, waxtaanee kon xiifal gi nga xamante ni soobu woon nañ ci nañu ci euh, dellu te jege nañu juróom-ñaari téeméeri élèves maîtres mooy ñu ñu dàqee kon ci seen formation gannaaw coowal fraude xamle nañu ni xeex bi dafay wéy xalifa général kuli murit moom la ñu seeti woon démb recevoir na leen xaste yeeg saaga yi ci forum de discussion yi net bi commission bi xamle na ni euh, moom données personnelles yi commission bi yor données personnelles yi xamle na ni jot na xeeti jëf yu ni mel dakt ñi war a jëf la ñu gis ni euh, nañu taxaw ngir ni situation bi daal euh, mi ngi jéggi dayoo wàllu tàggat yaram dinañu ko ci toftal naka noonu li yéen a kaay xëyee ni kon mbokk yi ñu yaatal yëf yi. mbokk yi dellu euh, sant leen ci ànd bi ak télévision Futur euh, Média ñoom tàmbali woon nañu seenu xiifal àllarba ba léegi euh, premier ministre nag moo ci daal di dugal loxoom ñoom liggéeykat yi daan xëyee ca conseil régional lanceur ba léegi ñañu yebal ña ngay daje ak jëwrin ju jëkk ji foofee nag ci teewaayu ministre bi nga xamante ni moom moo yor wàllug décentralisation Oumar Youm ak jëwrin ju ñu dénk wàllug finance ñoom teewee nañu moomee ndaje gannaaw ni coowal koppar moo waral ñu dëddu lépp lu jëm ci wàllu lekk ci pàttali yoreel nañu leen ñaari weer yoo xamante ni daal kenn fayu leen ko eh, ci seeni salaire ba moo waraloon kon ñu tàmbali ab xiifal xam le ni eh, lu ñu ca góobee gar ko ñett ca ñoom sax démb jot nañu leen a évacuer eh, ca l'hôpital ngir ni coono tàmbali woon na feeñ seen yaram te ji ci suba ci waxtu wa ñuy lakk drogue bi ñu saisir la ko xamle njëriñ ji ñu dénk biir réew mi yëkki ay kaddu dànkaafu ni eh, ñoom ñoo yor camion xar yi gannaaw ñu ngi dëgmal eh, tabaski eh, di ko fi dugal mu ni ngooñ moomee kon ñu indi ak xar yi bu ca kenn rax mbirum sineebar rawatina boobee yamba xamle na ni bépp matukaay danañu ko jël ngir karkaral sambabo yooyu bëgg rax ci tefanka yi ñu déglu ko moom Abdoulaye Daouda Diallo ci micro bi Ibrahima Camara ñu dem si si préparatif tabaski ñu wàññi leen euh, contrôle yi wax naa leen ko waaw loolu mun nañu ko mun nañu ko def mais nañu def ci seen bopp ne en tout cas amul benn camion wala oto ba nga xam ne day jóge bitim réew dugg Sénégal te duñu ko contrôler euh, naam dinañu ko oyofal waaye aussi ñoom it ñoo ngi leen di ñaan euh, ñu gën dimbali si loolu parce que quand même ay jur la ñu yor euh, taxaw leen si naaj pendant quelque temps dina am lu si yàqu c'est sûr mais aussi suñu amul pexe il faut ñu def ko parce que amul benn activité bu mun justifier maanaam ñu duggal drogue si réew mi. moom joriñ ji nag xëy euh, teewe euh, li nga xamante ni moom moo di drogue bi ñu saisir euh, ñu ko doon lakk léegi weer wu jot kon noonu la ñu koy doxalee jàpp nañu ni nag xeetu yamba bi di foñi moom la askan wi gën a taamu moo waral moo ëpp ci loolee nga xamante ni moom la ñu saisir fa ñu koy lakkee nag ña dëkkee ca boore ñoom xamle nañu ni sonn nañu tuxuñu muqiwuñu waaye dëkkee saa su ne ñuy di nooy loolee bu ñu sañoon mu dakk Ibrahima Camara ak Younous Diatta ñoo xëy ca bori Mamel. mu ne léegi ñu tàll si nebar bi takk der yi jot a jàpp si ña koy jëfandikoo takk der yi di waa douane gën a ràññeeku si lu bari li ñu jot a jàpp. si benn weer am nañu si maanaam lu jege ñeenti ton loolu lu bëre la. waaye xalaat nañu nag il faut ñu continuer di ko xeex euh, gis ngeen sax léegi ni ñu doon expliquer am na activité bu commencé màññeeku maanaam si drogue bu jógee Mali euh, malheureusement constaté nañu ko suñu biir réew ñoo ngi si béy drogue loolu aussi euh, en tout cas dina dinañu ko xeex incha allah ak fu mënti nekk suñu biir réew la. sa wet ga gox bi di cité Mamel la. askan ba fa yeewoo di joytu lorange bi leen saxaar su di andil. waaw maa ngi laaj naan yamba la ñuy taal fii ak doog yu gars yi jàpp nii. saxaar bi moom ñu rey ñun. li may sentir sama yaram instant bi maa ngi miir daal. di tamit ba ay munu yooyu ngeen koy taal même budul dara tamit ngeen ormal jàkk ji. ñu xool feneen fu ñu cee mën a def parce que instant bi fii nii bon saxaar bi day dugg ba si biir kër yi sax parce que ñun sànq nii bon dañoo mujj a daw dugg si biir mais taxu tamit ba léegi si biir saxaar bi ñu na ba foofu quoi. njiitu OCRTIS di takk der ci di xeex wàllu sinébar bi di ci andi ay tontu. Euh, ñun yaakaar naa ne euh, li ñuy wax bien-être bu askan wi moo ñu gën loo gis li ñuy xeex ni pour bien-être suñu jeunesse la donc euh, loolu rek moo tax ñu ñaan. ñi nga xamante ne préjudicié nañ leen maanaam ci lu ndaw maanaam saxaar sii di leen gêné ñu jéggal ñu ko benn fan kese la. xeetu sinébar bi ñu gën a nemmeeku mooy yamba bi ñu duppee fuñ yi muy bàyyee ko sa bëj saalum réew ma feem yi di gën di bari ci sambabo yooyu saa su ne bi ci gën a ràññeeku di drapeau bii waa ji nëbboon sinebar ci biiram mel na kuy supporter réewam si jamonoy coupe du monde bi. C'est en Il y avait di xeex euh, wàllug drogue ñi moom xam le ni xeex bi ñu sumbit euh, danañu ko wéyal délégation juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukki metre yi nga xamante ni dàqe nañu leen seen formation gannaaw coowal drogue euh, ñoom nag alxames yi ñoom ñoo demoon seeti xalifa général kuli Mouride kii di Pape Demba Soumaré mooy seen coordonnateur national nee na combat boobu ñu door faw mu egg am na lu mu ci dénk Mohamed Jo Diop. daje xalif général des Mourides euh, waxtaan nañu wax moom waxtaan bu yàgg waane ba ñuy ñëw fii kat euh, dañoo amoon tiis waane alhamdulilahi rabi alamin nim ñu dégloo ni mu waxee ñun am nañu yaakaar bu wér ni euh, li nga xamante ni moo ko ci war en tant que kilifa diine dina ko ci def mbir mi nag damay leeralaat tuuti rek population bi ñu xam bu baax ni mu demee parce que ministre bi boobu ba léegi mi ngi def ay euh, sortie médiatique te wax dëgg fa yàlla li nga xamante ne nii moom moo am ba am il faut ñu wax ko te de nous réclamons encore une fois de plus le départ du ministre ministre bi il est incompétent ministre bi bu fekkee dafa am ay sikki sàkk si sunu admission wala déet na xaar ba examen final ñu dem boori université Cheikh Anta wax ci mbindum ñi nga xamante ni ñoom ñooy door am seen uh, bac jàpp nañu ni uh, tàmbali na uh, ndorteel weeruk sulet daal nag daaw ñu ko seetlu li ko waral site bi di kon campus point sn lu ci bari nag ci étudiants yi ñoom bu ñu leen laajee fan la ñu bëgg ñu orienté leen université Cheikh Anta Diop la ñu wax xëy na moo leen gën a jege gën a jege mbokk yi waaye am na it gis nañu ni ñoo xamante ni ñoom bu ñu sañoon ñu jëm euh, bitim réew mbirum euh, préinscription euh, bokk na ci réew yi ñu tàmmu France Turquie ak réewi naar yi Macky Amar Alioune Diagne lu ëpp fanweeri junni ak juróom-ñeent la orientation yooyu soxal yees yees yiñ ci nemmeeku di daaw ba ci internet la ndongo yi di bindoo maanaam site bi ñu duppee campusen point sn. inscription ci internet moo gën ci élèves yi parce que loolu mën nga kaa def. partir de n'importe quoi day engagé responsabilité élève ci boppam lay engagé duñ fi ñëwaat laaj ñu ndax seen dossier dem na wala demul ci daara yu kawe yi nekkee ci biir réew mi université Cheikh Anta Diop la si ndongo yi gën a taamu waaye dama choisir université Dakar parce que ci laa gën a nekk à l'aise samay parent aussi euh, non samay frères fi lañ nekk aussi euh, ma xam ne su ma fi ñëwee aussi du ma am problème mu ak yooyu UCAD laa demandé ak UGB ak UT Université de Thiès. premier choix pharmacie laa jël après euh, biologie ak chirurgie waaye am na si ñu tànn dem bitim réew. ay université yu bëri ñoo fi université yu bëri ñoo fi ñu envoyé ñoo fi ni seen représentant ñii di jógee France ñi di jógee Turquie ñii di jógee Maghreb mooy Maroc Algérie Tunisie bëri woon nañ trop ce qui fait que am na élèves yu bëri yoo xam ne jël nañ seen dossier. lu weesu téeméeri junni ak ñaar fukki ndongo doon jongante ci bac bi atum ren téeméer boo ci jël fanweer bi ak benn am nañ seen lijaasa wax ci ñuy joxe seen xalaat ci internet bi gannaaw yenn xew-xew yooyu forum de discussion yooyu euh, gis nañu ni euh, saaga ak euh, yenn attaques yi waxante lu ñaaw dañ ko fay faral di nimiku la ci ëpp sax moom lañ gis loole nag ñu bari naqaru nañu ko commission bi nga xamante ni moom moo taxaw nag ngir aar lii ñu naan données personnelles gis ni jàmp nañu dakkal xeeti jëf yooyu mu jàpp ne ñi nga xamante ni ñoom lañu taxawal ngir ñu saytu boobee liggéey sóobu Nafissatou Sylla Thierno Laurent Mendy forum de discussion yi ñu amal ci presse en ligne bi bëri na ay internautes yu koy jëfandikoo ngir di ci wax seeni xalaat ñenn sax léeg-léeg ñu jëbal ci ay wax yu ñaaw. di ci dugg di ci sagante wala di ci waxante yoo xamante ne vraiment euh, amul importance quoi. saaga yooyu buñ ko buñ ko ci gisee rek dañuy foog na peut-être xëy na site bi lii mooy importance am maanaam lii moo tax ñu créé ko affaire yooyu quoi te foog naa ne peut-être euh, l'objectif c'est pas ça. ku nekk am nga ci biir wax li nga xalaat boobu mën na ko def sans pour euh, ay kàddu yoo xam ne du du noonu daal su fekkente ne sax liberté d'expression am na solo loolu li ñuy amal ci forum de discussion yooyu kii di commission de protection des données personnelles mi ngi koy ñaawlu. damay déplorer li ñu di xew ci site web bi ndax site web bi ban koy créer ba ko seen borom di jël xaalis di financé di créer ay site web defuñu ko woon pour permettre ay nit ñu ñëw. di ci saaga ñeneen di ci def loo xam ne amul yoon. fan yi ñu dëgmal fas nañu yéene taxawal ab organe de régulation waaye ngir waa CDP projet boobu dafa war te institution yi mu concerné bëri na loolu. mel na CNRA da ca war a intervenir ku mel ne ministère de la communication da ca war a intervenir pour proposer amélioration texte yi am. CDP am na role bu ndaw bu mu ci war a jouer ko loi bi jox par rapport à la loi actuelle de la ki qui régit notre commission mooy fekkee dafa information boo xam ni. day tax nit ki ñu ne kii mooy diw diw boobu moom bu ci feeñee mën nañu saisir ne ñu jàppale leen ma pour que information boobu neexuma nekk ci tel site web ñu dindi ko. li site presse en ligne bëri loolu jagleel internet yi ay forum de discussion te amul la benn surveillance gën na tax saaga yeeg wax yu ñaaw yi gën di bari wax ci tabaski gi ñuy euh, dëgmal xar boo moytuwul dana jafe dana manqué ñu am ko li ko waral euh, ci àll bi ñax mi taxu ko euh, demee noonu ñu nga xamante ni ñoom ñoo di tefanke yi ak ñiy yar ñu ngi ci ay jafe-jafe ba waral directoire national bi ëmb jigéen ñi yëngu ci wàllu élevage yëkkati nañu ci seen xalaat jot nañ ci indi ay proposition ngir bañ bu ñu àggee ba ca cëppaandaw la jafe-jafe am ci askan wi Ibrahima Camara koritab ren weesu xel yi jublu jëm tabaski ku ko tudd soxla xar te fanke yi a biral ne ren xar des koy manqué. may ñaax population bi nañu teel a jënd seen i xaru tabaski bu yóbboo sax ñu di seet place ci biir garage bi foo xam ne ci ruq bu ndaw boo xam ne dañ ko fay def ñu denc fa seen xar yi. gars yi ci samakat yi la seet parce que ñoom ñëpp dañ ciy jàpp seen kii kar yu jigéen la gën a ji bëgg jaay période yi moo tax ñëpp am ci tiitaangi kar dina seer ay pexe ñàkkul ci gis-gisu jigéen yi yëngu ci wàllu càmm si kàddug seen njiit faw ay jéego jiitu ngir ñu mën a suqali càmm gi ci mim réew lii mën a am tabaski Sénégal mooy que ne ñu def sàmm saaw mooy pastoralisme sàmm saaw nag loolu laa la wax ne bu dee xar bi suur na naan la lekk na bu ñu amee ñu ànd ak technicien euh, élevage yi yaakaar naa fii ak diiru at dinañu am tabaski bu doy. nguur gi war nañoo dimbali ci ci compte parce que suñu amul compte xar yi day gën a wàññeeku. ah àll bi rek moo moo manqué la xam nga naa ndox mi moo koy wàññi fan yi nag li ngeen ñoom joore yëpp taw na. ñu nemmeeku beneen xeetu yarum xar ci dëkku taax yi te fan kay gis ne ñaari xeetu càmm yooyee dafa wute lool. càmm googu wax dëgg yàlla càmm la boo xam ne day suqali koom-koom réew waaye càmm la boo xam ne bi eh, ñun éleveurs traditionnels yi daanaka mënuñu ko def ndax li tax mënuñu ko def mooy que liggéeyam dafa métti il faut nga jàng ko. Euh, donte réewum Sénégal bëri na gàncax ay dégg ki dex yu mën a suqali jur gi Sénégal noppeegul am lu doy si wàllu ndawal ñeel la mala googee. wax ci wàllu euh, karange gi ci béréb yi nga xamante ni moom la foofu la ñuy jaayee xar jaaykat yi euh, ñi ngi koy euh, bàyyi xel situation bi nag jàpp nañu ni yàqagul dara ci seen wàllum njaay teewul ñi ngi organiser wu ngir jur googee ñuy indi suturloo ci bu leen ca Samba Boye jiitu Codé Ndiaye Thierno Laurent Mendy. kaaraange ci daral yi soxal ñi di jaay xar ci bërëb yooyu loolu waral sàmmkat yi di def seeni pexe. ngir sàmm seen kaaraange yi. ah fii de gis nga niñ fi nekkee maanaam ni ñuy saytoo suñu kaaraange moom metti na parce xam nga ni fii moom amul amul sécurité mais teewut maanaam ñun ñoo fi ne guddeeg bëccëg fii la ñu ne yenn saa yi am na ñoo xam ne fii lañuy fanaan ci biir fanaan bi ñoo ñoo ñoo assuré suñu sécurité instant yi parce que toll nii moom dèjà gis nga nii la ñuy bàyyi amuñ presque fii nii waaw loolu taxoon ñu ñëw fii moo nekk fi. en attendant guddi gi am na ñoo xam ne ñooy fanaan fi parce soo yoree sa jur moom te amul foo ko teg il faut nga ne fa di leen saytu noonu la ki nekk de ñun ñooy yoreel suñu kaaraange boobu. donte jaaykatu xar yooyu ñu ngi defi pexe teewul ñuy nemmeeku ay càccum xar ci bërëb yooyu. affaire sàcc boobu ngay wax nag moom mënul ñàkk quoi parce que ni lu muy liggéey lu ne ci la yàqule. leneen li ci des nag moom vraiment fii ñun moom defuñ ko dalal daal dañuy ñëw pour pas fi rek su ko borom soxlaa dañ fiy jógee. bi fii nii am na boo yoo xamante ne nii dañuy boole kees yi nii quoi ñu fanaan fi bu ñuy tëddee ci suuf oto bi ba bës ba ba même heure deux heures kii yeewu ñu ci des mottali quoi loolu lañ fiy dundee par des fois sax ñu dañ fii jàpp sàcc ñu naan kii buuju maa laag nii laag nii ma ne sàcc mi ngi commencé ci buuju parce que ñun suñu xamoon njëriñu buuju kon duñ jaay xar dañuy dem buuju ji ñun tamit jafe-jafe yi tax ñi di jaay xar ci bërëb yooyu di laaj ci autorité yi ngir seen liggéey gën leen gannaaw euh, wàllu ndox mi ñuy euh, jooy ni nawet bi daal dafa manqué ci mbay mekk yu ni mel ñi xamante ni euh, ñoom ñoo féetee fële ca bët gànnaaru ko réew mi ñoom ña nga cay wut ay pexe gis nañu daal meneen xeetu mbay moo xamante ni xëy na ci la ñuy sóob seen loxo ngir bañ sàqi dara dootu ci nekk ndax nawet bi ni ñu ko doon séentoo demee guni leeral yi Aliou Bandel ñaa ci waxtu bi nga xamante ni ñi yëngu ci wàllum jéeri gi xaar taw yi dundu njàqare ci longue pause pluviométrique bi ñu nekkee baykat yi fare ci diwaanu dandemaayo bi rawatina ci culture irriguée bi kat war nañu nooyu waat bu baax a baax ndaxte nag benn ci seen ay doléance bu yàgg lool la nguur gi indi saafara maanaam wàllum fexe ba yokk tool yi ñu aménagé ngir ñu amal fa mbayum ceeb ci misaal ren ji li nga xamante ni xayma nañ ko ci wàllu superficie bi ci nar a yokku yegg na si juróom-ñetti junni hectare njëkk ci lu ñeel wàllum culture irriguée ci diwaanu dex gi biñ ko fi indee ci atub 70 ak jamono yi. mën nañ jàpp ne en tout cas euh, amélioration euh, daanaka am na au niveau de Matam parce que euh, ku doon wax 10 000 hectares aménagés mais aussi fi ñu nekk nii perspective bi am nañ par lu toll presque 10 000 hectares yoo xam ne. ci détail bi am na bañ projet bu ñu duppee Azam AFD moo ñu jàppale pour loolu mu toll ci 1270 hectares. am na beneen projet aussi financé par euh, la BADEA muy ñu koy duppee projet Waoundé 600 hectares la euh, y a un troisième projet de 1000 hectares euh, financé aussi par le fonds saoudien en plus de cette composante PRACAS aussi am na benn ñaareelu composante bi mooy 3000 hectares yoo xam ne aussi séddale nañ ko dans les deux départements que sont Matam ñuy dalloo fukki junni hectares yi ñeel programme indien bi béykat yi ceeb yi ci diwaanu Matam dinañu dalloo itam ay périmètres yi nga xamante ni dañ leen réhabilité waat te ñu xayma leen ci ñaari junni hectares di ay liggéey nag yi nga xamante ni ñoo ngi ko amanal ñoo ngi koy amee ci njàppandalu ay financement yu tukkee ci banque mondiale ak gouvernement sénégalais jaarale ko ci PRACAS. Ali Bandé ñoom plan Sénégal émergent nu ñuy euh, def daal ba li ñu ci mébét ñu daal di ca yàgg direction bi yor wàllu prévision tey def ay euh, gëstu euh, ci mbirum koom gi amal na ci am ndaje xool na secteur yi nga xamante ni foofee la ñu war a gën a dut baaraam potentiel bi fa la ëppee ngir suqali réew mi wax nañu it lu jëm ci wàllu ko ndaw ñi ak lu leen tàggat Mbacké Amar. ngir doxal plan Sénégal émergent waa direction prévision ak étude économique. gis ne dañu war a sukkandiku ci doxalin buy laal ñëpp. Euh, wax ci li ñuy naan croissance inclusive maanaam nan la ñuy def ba ñëpp mën a bokk ci yokkute bi euh, foofu nag développé na plan Sénégal émergent lan la ci wax pour que ñëpp mën a bokk ci yokkute bi parce que croissance yokkute mën na am sans que ñëpp bokk ci. bu fekkee ne croissance bi dafa lalu si euh, yokkute ñëpp effectivement loolu la ñu naan croissance inclusive moo tax bu plan Sénégal émergent lal ko ci mbirum agriculture. la miser pour def croissance am miser ci habitat social miser ci euh, secteur informel pour loolu la ñuy naan euh, secteur inclusif yi yoo xam ne boo ko développé rek maanaam tout ñëpp dinañu mën a gis seen bopp ci croissance bi. ci jamono gi ñu nemmeeku ak ñàkkug liggéey nguur Sénégal nar a sukkandiku ci tàggat ndaw ñi. waaw formation bi lu am importance la parce que euh, déjà entreprise yi nga bëgg ñu ñëw euh, implanté wu au Sénégal mënuloo leen indi te amuloo ay ressources humaines de qualité yoo xam ne ñoom la ñu soxla. donc la question de la formation devient très importante euh, moo tax ba li ñu naan ci fondement yi la bokk fondement yi émergence yi comme énergie formation bi euh, euh, accès au crédit et cetera yooyu yëpp il faut que ñu jëm ko régler pour mën a accompagner projet yi ñu mën a taxaw. plan Sénégal ñu taxawal ko ci bu yàggul dara war ci boole ñëpp te bàyyi xel njaboot yi. tàggat yaram jàpp leen ko ñi ay entraîneur lañu ñuy technicien ñi ay euh, surveillant euh, ci wàllu euh, sanguma géej gi am na tàggat gu ñu leen defoon toll na dal ci neuf session formation jot nañu nag seeni kayit këyit ngir ku ci ne ca la la neex ci wàllu tàggat yaram nga mën ca yëngu ak karange gu mat sëkk Cheikh Tidiane John teewoon na ndaje mi si mi ñu ngi toll ci ñetti téeméeri ndaw yoo xam ne ñoom jot nañoo am seen diplôme bu ñeen lépp lu jëm ci wàllum entraîneur wala boog surveillant baignade ndaw yi nag lu toll ak juróom-ñeent ci ay session de formation ñoom lañ jot a def te ñoom sax ñu ngi bàyyeekoo ci juróom benn région li ni mel moom moo tax sax ministère bi neen daal moom daal dafa bëgg doxalin bu bees. tey dañu ñëw di joxe ay diplôme yoo te ne day wane xereñu ay jeunes yu nekk Sénégal ci encadrement ak formation bu war a def ci football ak i domaine dafay doon lu am solo ànd ak président fédération yi dañu bëgg a wone rek ne Sénégal fi ñu jëm suñu buggee defar li nga xamante moom lañ yor muy sport il faut ñu jàpp ci liggéey bi ci suuf liggéey bi ci suuf kenn mënu cee jàpp te amoo formation CONOS daal di nekk partenaire ministère des sports ñoom sax ñu ngi rafetlu liggéey bi waaye daal ñoom ñu ngi xam ne ne pour lépp mun a dox faw daal ñu seet doxalin gu bees. muy le l'encadreur technique le manager du sport mais également l'athlète ñett yooyu nag ñoo war a ànd liggéey ñun ñi nga xam ne nag ay autorités lañu ñoo ñooy suñu suñu sooxee ci seen liggéey. lu ministre bi bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg sport bi jëm kanam du mën a sotti. session de formation yi ni mel ñu daal di koy teg ci juróom benn discipline sportive te ndaw yi daal di ci am seen diplôme ñoom daal ne nañ seen bëgg-bëgg moom mooy assurer lii di relève bi. Euh, relever défi athlétisme c'est-à-dire yéegal athlétisme foo nga xamante ni fa la nekkoon wala ñu dépassé ko looloo tax ñuy rey suñu bopp euh, nekk euh, encadreur athlétisme. y a que des jeunes qui sont là et dañoo am lu ñu bëgg ci seen xol lu ñu bëgg moom mooy ñu relever athlétisme jëmale ko kanam. diplôme bu bees bu ni mel daal di nekk garantie boo xam ne dafay tax ndaw ji daal di mën a def seen liggéey ni mu waree tax sax ñoom duñu am benn gàllankoor ci seen liggéey. ñu wax euh, ci stade Demba Diop kon ak euh, liggéey yi nga xamante ni ci stade kon euh, bii di ne fii ak liggéey yi ñu fa doon amal jëwriñ ji ci boppam moo càddu moom Makhtar Ba xam le na daal ni kon liggéeyee ña ngay avancé bu baax moom ministre des sports wax na it lu jëm ci stade Demba Diop nee na danañu ko tëjit officiellement gannaaw match boo xamante ni dina fa dox diggante Ngor ak AS Pikine ci li ko waral ak liggéey yi fu toll àdduna ci ci micro suñu reporter Cheikh Tidiane John. bi ñu ñëwaatee tey gis nañ ne lépp lu nekkoon ci suñu njàqare bu doon fukk juróom-ñett yi dem nañ lépp pareegul mais mun nañoo jàpp ne engagement yi ñu joxoon le 24 ak li ñu fi fekk buñ ñu nee suba mu pare dinañ ko li ñu fi fekk nag dal na suñu xel. gis nañ gazon bi gis nañ caméra de surveillance yi gis nañ lépp di wone ne sécurité bi renforcé nañ ko ci biir stade bi fii wax nañ léegi ci stade Demba Diop stade Demba Diop fas yéene naa dinaa waxtaan ak ñi bokk ci moom ñi nga xam ñoo koy utiliser yëpp acteurs yi pour que bu ñu paree ci coupe du Sénégal ñu mun koo tëj gazon baa ngi Sénégal ñu ngi defaat grille de protection bi li nga xam la ñu war a def mooy gas def fondation yi samp grille de protection bi defe naa ne dinañ ñaan suñu mbokk entrepreneurs yi ñu gaaw ci ba nga xam ne du yàq compétition yi nga xam ne moom lañu ndaw ñi am pendant les nawetaan et tout Euh, stade ma Diop kon ci lam foo bëgg amal beneen stade bi gis ngeen ko Léopold Sédar Senghor foofu it liggéey yi ni mu ko waxee moom ministre bi yor wàllu tàggat yaram Matar Ba mi ngi avancé dal na xel ki nga xamante ni moom moo di entrepreneur bi it euh, daal na ci euh, joxe xalaatam mbay fay ci micro Cheikh Tidiane Dione ñu am normalement 30 août la war a jeex waaye comme que AG national la nguur gi ñaan ñu ne dafa buggoon ñu accéléral ko délai bi gan ko jegel ñu diggoon ko ne la 15 bu jotee dinañ ko jox ay caabeem yaakaar naa ne tey su yéen war ngeen constater seen bopp ne peinture yi pare na construction métallique bi pare na grosse œuvre bi jeex na et puis vidéo de surveillance gi gis ngeen fa ngeen ci toll donc dans une semaine on va finir mooy la 13 quoi la 13 la 15 ñu mën a def réception bi génn stade bi jabal ko état bi pelouse bi ñu tabax nag ñun jàpp nañ ne bokk na ci pelouse yi gën a baax ci Afrique parce que déggoon naa sax ñuy wax ne pelouse il faut juróom benn weer pour mu baax waaye ñooñu seen xam-xam moom ci loolu parce que tubaab yi dañuy jëmbat soo jëmbatee il faut 6 mois parce que balaa muy jàpp day yeex waaye lii dañ ko jiw dafa am racine déjà ci biir ba pare. yeneen xibaar ba tey jii soxol euh, Didier Drogba mu xamle ko kon ci page Facebook am na ko noonu Twitter euh, nee na carrière internationale am moom euh, Didier Drogba arrêté na ko loole nag gannaaw fukki at ak ñaar yoo xamante ni yëngu na ko ci lu ci bari nag moom moo nekkoon capitaine ci biir équipe bi ñett yoon participer na it ci lu soxal kon coupe du monde moom Didier Drogba ni kon jeexal na carrière international am ñu daal di yëri leneen yéen kaay yi li ñu xëyee tey ji ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf borom yoonu yokkute yokkati na ay ministre am xibaar baa ngi ci observateur ñetti ministre yi mu tëbaloon gannaaw ba ñu génnee ci élection locale yi ndax ñàkk gu ñu ñàkk seen i gox Macky Sall jëlaat na leen tafaat leen ci boppam mu di Mor ki amee woon environnement ak développement durable Bonoan Samb ma ñu dénkoon SONES ak emploi Abdoul Aziz Mbaye ma amee culture yéen a kaay bi nañu Macky Sall ma leen folli woon léegi moo leen folaat def leen ay ministre conseiller personnel bu président de la ñoom ñooñee keneen ku mu folli woon te wutalaat ko feneen fu mu ko duut duutal observateur nañu moo di Anta Sarr ne moom it gannaaw duma yu mitti te rëy te gaaw yi ñu ko duma woon ci local yi ci ab goxam di Sicap Liberté Macky Sall ma ko tëbaloon ca ministère de la femme famille ak enfance Anta Sarr moomee Macky defalaat na ko ab décret mu dem wuuti ji Mansour Faye magi première dame ca bopp solidarité nationale suñu Macky national la ci xët u njëkku la soleil ndaje may am ca États-Unis di sommet États-Unis Afrique Macky ci kaddu journal bi ñett moo di yéeneem ak bëgg-bëggam moo di lëkkaloo gi dox ci diggante Amérique ak Afrique doon loo xam ne dañu koy ñoŋol ba mu ñoŋ loole la Macky Sall bëgg Le Soleil nañu yamu ca ndax it chancellerie bu ambassade du Sénégal ba ca États-Unis Macky Sall daloo na ko ci biir journal bi Macky Sall ak peelam tiim suuf si di peel muy jóg ñu jógee foofe dale ci la Sénégal mi ñu xëy xamal ne Macky Sall ak loole mu daloo démb mbir la moo xam ne def nañ ca ñeenti milliards fukki at gannaaw ba ñu nekkee ci biccoog mbaaloo ci la maison du Sénégal ba ca New York yéen a bi di las ñu xamal xamal ne kër googee di la maison du Sénégal ca New York yëf yi taxaw ñu taxaw tuuti ci populaire fekk ko fa moom jiitu réew mi Macky Sall ba mu taxawee ca kanamu doomu Sénégal yi ca États-Unis ak la mu leen wax la leen Macky sant moo di nañu bàyyi ñaxtu yi yaa trop de ñaxtu nañu bàyyi ñaxtu yi ak njàmbat yi te jàppale ko mu mën a xutti tànku tubayam ci lu suqali Sénégal Sénégal libanais bii di Bibo Bourgi ay mbiram ci enquête yi nekkaay Sud Quotidien Populaire L'As ak Le Soleil L'As xëy ñu xamal ne moom Bibo Bourgi gannaaw ba àttekat ba santaane ngir ñu xoolaat ak ak wér-gu-yaramam xool ndax wopp ju ne da koo dal am na am déet sa docteur ya santoon loole def nañu ko àllarba ji ñu weesu la ñu kayit ba jox juge ba juge ba tey lay wax Bibo Bourgi ana fan la ca féete populaire nañu am na lenn lu ci am ne avocat Karim Wade yi nga xam ne talaata bële weesu newoon nañu Bibo Bourgi watta génn Sénégal ndax mënee suta Karim Wade mu koy wuuta moom Bibo Bourgi avocat yooyee nee nañu yóbbu Bibo Bourgi mu dem dafa mel ne yàlla ak yàlla Sud Quotidien nañu avocat yi Karim Wade yi noppi nañu te it ànd nañu ci ñu bàyyi Bibo Bourgi mu dem ca France fa jóge yéenekaay bi dañu yooyu la avocat ñoo jébbal Bibo Bourgi bon de sortie bi koy mën a may mu dem bitim réew fa jóge léegi nag siis bi moo ca des Le Soleil moom it sa xëy leen faylu dikk xamal ñu ne avocat yi Karim Wade yi ànd nañu ngir ñu jëli Bibo Bourgi ci Sénégal yóbbu ko France mu faju ji fan la ñu koy suul wala fan la ñu ko suul mu di góor jigéen bii di Serigne Baye laaj baa ngi sampe ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool la direct ay foo nañu moom góor jigéen ba di sëriñ Baye gannaaw ba ñu ko fekkee mu faatu ci appartement bu nekk ca Maris néew ba ña ngi koy jàng-jàngee di wut fu ñu ko suul fu ñu ko bëgg a yóbbu rek ñu ne du fi populaire nañu ca Touba la ko bëggoon a yóbbu waaye waa Touba ba ñu ko yëgee lañ leen wax moo di ku leen indilub góor jigéen ci seen i armée da nga ko diggaale ak ñoom Mamatar Gueye bu ONG Jamra ba tey ci direct info nañu fa sëriñ Baye fu ñu ko suul na ñooñee xam ne góor jigéen lañu leen suulal ndax sëriñ Baye musta nëbbu ak ngóor jigéenam observateur tax nañu suul nañu ko bu noppi amuñu ci sikki sàkk ndax ca CTO di fa ñu yóbboon néew ba gaay nee nañu bindal nañu nañu ay mbokkam kayit wi wane ne nañu jël seenub néew néew ba jël nañu ko ba yóbbu ko suuli ko Duudu Njaay Mbeng di cousin ci góor jigéen bi leeral wax ja nee na Sëriñ Bay suul nañu ko fan la ñu ko suula kan la ñu ko suul Duudu Njaay Mbeng ne duñu ko wax ñu wax ci photo bi nekk ci biir observateur bël journal bi góor jigéen bi di Serigne Bay ma nga fa sol ab ci set bu ñu desee Mariam Faye Sall dóor foofu kap bu ñu bind Macky Sall journal bi nañu góor jigéen bi ndekete militant la woon ci parti Macky Sall Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, ñu koy euh, gërëm gërëm mbooleem téléspectateur yi ñu àndaloon benn waxtu ba léegi incha allah rédaction bi dana dellu si 19h30 euh, ak 20 ci yeneen i xibaar ñu yendu jàmm.